ñu ngi lay delloo ziar bu ci loone waa sant yàlla sama juumul nga woon jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy mobile mais mobile jotul ñëw nga ñëw tey lan moo la andi fii ci stade waaw sant yàlla rek ñëw seetaan si lam parce que ñun lam la ñu bëgg mooy sunu mooy sunu ëpp dañuy ñaan yàlla li ko tee wala li ko tax ñëwul mu wàcc ko mu nekk si jaam ak salaam parce que kenn bëggewu ko ni jaam ak pexem yàlla ak dogalam xëj na yàlla moo ko dogale nii quoi waaw mais dama gis léegi ki nga xamante ni mooy Kara Dollé mu ñëw dëkk la nee na boo wàccee mu duma la parce que dañ la joxoon avance jox avance promoteur bi amatul amatul xaalis te boo lekkee xaalis bi riba. Kara Dollé mbaxal la du man ak moom moom mbaxal la. waaw moom ak Ameth Lagros la wala Boursine Dóor. sama xelam yooyu laa ci nekk dañ leen doxoon seen combat yi ñaar. doxuñu woon sama combat bi may bëre petit combat dañu war na bëre man ak moom loolu yàgg na n moom dépassé naa ko fii mu ne nii man ak moom li may fekkook li muy mënuma bëre ak moom loolu la mais du leneen mais bañuma ko pour leen nag mais prix yi moo wuute waaw. mais sa combat ak mobile gannaaw mobile nekk da ngay toog xaar ko ba mu ñëw ngeen bëre wala da ngeen dañ leen wutoo yeneen adversaire non man toogu may xaar kenn damay bëre waaw bu ñu ma joxoon avance tey tey ma jël bëre. fi mu toll nii bu la gannaaw mobile nekk fii kan ak kan nga ne yow ak ñoom combat. non booy mbër yi dañoo fuy koo si laaj mooy loolu waaw. yaa sama xarit la waaw lañu buur siin mi. xanaa ñëpp ay champion lañu. non samay nit. samay nit ak samay mbër. waaw. mais ñoo fi nekk ay adversaire non booy mbër yi dañoo fuuy sax koo si yaakaar ne mooy loolu. mais am na ñoo am na loo xam te soo ko waxee ni ñi dañuy xam ne li raisonnable na dañ ma jox Moussa Ndoye. fuuy ko de. Moussa Ndoye Sarko. waaw diggante ak Sarko neex. fuuf waaw. Assane nuyu waaw maa lay fay. mel ni nga ñëw en tant que amateur toog di seetaan. waaw dama ñëw en tant que amateur félicité ñoom Ale ak Jimbo ak Pape xam nga làmb nii la rek dangay ngay géej la quoi ku nekk mën na ñëw rek bay sa war dem ma leen di félicité ñaanal leen yàlla taxaw leen ba ëllëg ñu man leneen. jox ñëpp rendez bi nag le 24 octobre fils de Balla général Malika. mais ñu gis lamb jooju. saa boo ko jàppee coow lu day bari. lan moo nekk si lamb jooju. waaw combat ba neex xam nga lamb day toll foo xam ne day jaay boppam mais combat ba moo jaay boppam te mardi ci signature bi dañ si xam dara incha allah. diggante fils de Balla général Malika ay ndaanaanu lamb la. waaw ñu tuddee ko ndaanaan nag Bamba Fall borom Medina su baa ba le 24 Bamba dina wane boppam. ma wane sam bopp waxuma waxi mbëri de di si gis dara incha allah waaw. kon bala 24. bala 24 incha allah.